bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammad wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi tedd yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi bàyyiwuñu kenn di jël seeni nuyoo ca na mu gën a rafete na mu gën a mate na mu gën a selle teg ko ci loxol a Ahmadul Badawi bi nga xam ne moo fi teewal a Cheikh Abdul Fattah teewal fi a Cheikh Baraka mu jàllale ñu ko ci mboolem ñi fi teew ñëpp di kilifa yu góor yi ak yu jigéen ñi bàyyiwuñu kenn di leen ziyaare leen jox seen wàccuwaay bu baax di sant suñu borom tabaraka wa taala bu baax a baax ci fekke gi ñu fekke waat ren ak tal gi ñu ko tal ca loolu amul kenn ku la ko mën a defal ku dul suñu borom tabaraka wa taala ren la fanweereelu at fanweeri at ay at la diggante bi ay nit judd nañ fi faatu fi ay nit daan ko fekke fekke ko kon ñi ñi xam ne fekke nañ ko bareen ñoo ngi yeesal suñu cant suñu borom bu baax a baax ñaareel mooy am nañu ko daan fekkee daan ko tal ngir tal ko ren na tëluñu ko loolu it xéewal la koo xam ne suñu borom moo koy defal nit muy xéewalu tal kon ñoo koy sant bu baax a baax di ndokkeel bu baax a Cheikh Mouhamadul Fadil Abdul Fatah ñi xam ne mooy jëwriñu daayira xidmatu alxaaji Mouhamadul Fadil bi ànd ak moom ci liggéey bii muy Serigne Baye Galas ak ay rakam ay xaritam ñi mu àndal liggéey bi ñëpp ndokkeel gi li ko waral mooy fanweeri at ni ma ko waxee léegi du lu ndaw kooko génne suñuy at ñaare ca daara ga la fekk lii ña ngi ko sose woon ca bi ñu nekk daara ga bi ñu koy sos si bi ñu nekk ci daara ga nag ay ndaw ñu doon def loo xam ne moo xew ci dëkk bi mag ñi di ko def ñuy toppandoo la woon muy màgg ba ak si fii waaye yàlla def na tawféex mboolem ñi ngi ko daan àndal ci jamono jooja ku ci amul ngànt ñàkk nekk ci réew mi téewul fee teew yaa ngi séq ak moom mbir mi na nga ko seen séqee ak moom ba ñuy def ci ca bu njëkk ni ma waxee wuute na ak léegi léegi moom ku ko ci séq ak moom rek melokaanam la ak jikkoom ju rafet jum séq ak yow am na noo xam ne bu ko doxalee woon ñëpp téye ci seen loxo génn ci waaye nag ñoo ko ci ndokkeel kon ci jikko ju rafet yi nga xam ne moom lay ànd ak ñun jamono gi nekk di ko seereel mbooloo bi loolu mënut a ñàkk ni ko sëriñ Saalif waxee nag dugg ci waxtaan wi ca fas yéene ko gàttal incha allah nga xam ne alhamdulilah looloo taxoon sax ñu tàng thème bi ngir bëgg mu gàtt xëy na bu dee yenn thème yi man ngaa am ñu lay wax nga naan ma àggale wala dara waaye xekkam yi moom xekk ma boo daaneel rek mën nga kaayam ndax buñ ñu jëloon benn rek mu doy sëkk xekkami Cheikh Mouhamadul Fadil min xekkami Cheikh Mouhamadul Fadil ci la ñuy waxtaane xekk ma nag wax lay doon joo xam ne ju gàtt lay doon làmboo ay maanaa yu am njariñ ci yi lool ñu mën cee sarx ay téere ñu mën cee sarx benn xekk ma mën si koy sarx ay safahaat maanaam mën si koy leeral ay paas yu bare bare bare loolu nag suñu borom da ko ca defaloon tawfiq ay nit la ko yàlla jagleel ñoo xam ne seeni wax day gàtt fasu fees dell ak maanaam fees dell ak ay njariñ nga mën koo jariñoo ci waxtu nekk Cheikh Fall yàlla defaloon ko ci mu mu amoon ci tawfiq lool ñu koy wax benn par benn lu ñu ci mën a saax saax ko bu gàtt bokk na ci waxe Cheikh Mamadou Fadal radiyallahu nee na woon saa boo ne taafeer weer muy saa séenoo weer na nga xam ne weeru lëm génn sa dund ca dootu dellusi ba mukk nee na saa boo séenoo aw weer ba gis ko xamal ne weeru lëm génn sa dund yow goo xam ne dootu dellusi yëg-yëg boobu nga war a am sa dund mi ngi wàññiku ca dootu dellusi mukk bokk na ci wax Cheikh Amadou Fadl radiyallahu anhu daana wax ne xajoo naa leen xajoo seeni bang-bang xajoo naa leen xajoo seeni bang-bang képp ku jaboote aw nit ñaari jikko yooyu war nga ko bàyyi xel xajoo njaboot ji bu baax waaye xajoo bang-bang yi matadi yi nga xam ne mi ngi feeñ sa diggante ak ñoom nga di ko dékku bañ leen a jaay doole bañ leen a dara daraja bañ leen won ne leen doo seen moroom waaye xajoo leen ba noppi xajoo yi bang-bang olof day wax ne dee suma yaakaar yab ma waaye Cheikh Mouhamadoul Fadil moom bañut loolu ndax day fexe ba jariñ nit ki rek bokkoon na ci waxi Cheikh Mouhamadoul Fadil radiyallahu anhu nee na boo yéenee ñëpp jàmm ku am jàmm da am jàmm ku amul jàmm yow da nga am jàmm nee boo yéenee ñëpp jàmm ku am jàmm da nga am jàmm ku amul jàmm da am jàmm ndax suñu borom mi nga xam ne mooy assalaam di joxe waate kon jàmm bi moo lay defal jàmm lu la nit yéene yéene ab safaan yow jàmm ngay am moo tax ñaan la yéene néeg la borom moo ci fanaan Cheikhul Khadim daana wax ne liñ naan saan wuy dem di si day xanaa xooxub dem doy na ca nee na kon day lu lu baax waaye bu dee lu baax lu mu gën a rëy gën ca kon li nga yéen nit ñi ko bàyyi ci xel baax jàngaloon nañu moom Sëriñ Tuubaa ne nit ki boo ko yéenee ñaari nit bu ñu yéenantee ki yéene nit ki ab safaan kee yéene ko aw yiw bu guddi jotee ñaari yéene yi dañuy dage ci ku nekk jëm ci ka sa morom kañ la yéene ñu dage ci mbedd mi ne kirtim di xeex ku nekk bëgg a jëm ci sa ñu di ko def nekk fa ba jant na la fenk ku nekk ne naa dellu fu mu jóge ba suba nga xam ne yow mi yéene woon lu bon lu bon laay jël siwaat ci yow yow yéene woon lu baax lu baax laay jël siwaat si yow kon loolu nit ko nekk war ko bàyyi xel yonent bi saa sam ne ab jullit ngëm yàllaam du mat lu dul ne li mu yéene boppam daf koo yéene moroomam boo ko leen Cheikh waxe Cheikh Mamadou Fadil radiyallahu anhu daana wax ne ak ndawal ak ndawal de jërto xër ndax saa boo ko gisee xamal ne bakkan rod na ak ndawal jërta xéeral ndax saa boo ko gisee xamal ne bakkan rob na di lu mat bàyyi xel mbokk yi bi lu mat a bàyyi xel bakkan boo xam ne bindoo ko nga war cee bàyyi xel ne yàlla tere la ko war nga cee am nag ak doylu loolu leen ci ñett li lu ndaw loo xam ne sëñ Moodu Maamun Ñaŋ xafidahu llahu taala wa raa wa ataala baqaa moo ñu ko nett li woon ci ngan gum ananu sëriñ Abdul Ahad dem ndakaaru gane ji alaaji Njuga Kebe mu ne ci biir yoonu ngan gi ma jàng ci ñetti bind nee na bi ñu toll tëngéej motaar yi dar ñu mbooloo mi riir ñu naan sëriñ Abdul Ahad moo fi ñëw tëli bi fees dell ak mbooloo sëriñ Abdul Ahad daf maa tàpp ne ma Moodu Maamun sa wallaahi xamal ne sama bis bii xàmmeewuma ko ngi teg ma sama jaar ma jëm ca këru dëgg benn yéegi laa cam nee na ngi ne àgg ca kër Alaaji Ndooy Kebe nee na ñu wër kër gi ba kër gi daj biñ ko waree ba kër gi rek nee na ñëpp di yéem kër gi sëriñ Abdou Lahad toog daal na ko njugal mu ne ko mu ne ko bu àdduna doon kër de maanaam am nga kër waaye àdduna doon kër muy ñaareelu bind nee na ñetteelu bind ba mooy teraanga yi dafa noppi ñu sàkku sëñ bi mu ñëw xool teraanga yi nee na ñu werele ko maanaam ñu teg ko bool yi ci werandaay wi mu bari lool bool bu ñu ubbi rek ñu lem cam xar nee na ñun ñii nit ñëpp rek suñu xel moom appétit lay am nee na sëñ Abdou Lahad moom ñu xool ronkoñ yi fastu ci sikkim bi ndege sori na lool mu ne sallahu ndege ndegem mbindeefa sañal moroomam mbindeefam lii xar moo xam ne bi ko suñu borom yi bind jàppale ko ci ab kawar nga rendi ko fulli ab darab génn yëree béeram teg nee teg ko ci taal di ko wëlbatee ko wëlbati ba mu ñor xomm ci yéegal ko sa yaram ku jéemuwut yàlla suñu borom mi la bindoon bu lay lakk du ko kon loolu mooy bind bi nga xam ne jàngale ko ci bokk na ci wax Cheikh loo dégg ci boo ko gënee gëm ci li nga xam ci moom la dégg dalaa gënal li nga dégg ci nit boo ko gënee gëm ci li nga xam ci moom la nga dégg dalaa gënal loolu lu mat a jàngat la xam ci nit ay mbaax mbaax yu dul jeex xam yoo xam ne yaa ko jëflanteeg moom xam ko nga nangu koo weccee benn safaan boo dégg ci moom da dégg ku naan la man de sawaay fi ma ko tegoon waaye ndekete dégg naa def na nangam nga xam ne yow li nga dégg day mel ne moom nga gën a jàpp ca ci moom bàyyi lépp ngir ngir safaan moo tax ne li nga dégg ci nit boo ko gënee gëm ci li nga xam ci moom la dégg dalaa gënal boo ko ne wax Cheikh Mouhamadou Fadal radiyallahu daana wax ne ak suuf képp laa ci ñee ak muñ suuf képp laa ci ñee suuf nga xam ne ñu ngi ci kawam def lu nekk ci kawam mu ne dégg rek wan ni ñu defuñu dee nee na moom rek la la ñëwee ci ak ak muñ nee na ak taalibe maam Cheikh Ibra rek la ci ñëwee bokk na ci ay waxam radiyallahu anhu nee na kër kër kër moo koy yor waaye toog yoru ko dafa ñëwoon jàmbat ko këram Sëriñ Fall na ko bindal kër mu bind ko mu ne ko waat bindaatal kër mu bind ko mu ne ko lii moo yor kër kër moom kër kër moo koy yor waaye tooge loxoy neen yoru loolu it képp ku mën a ku nekk war na ca bàyyi xel bu baax a baax na ko suñu tubaab waxoon ci nax ju rek noof laay loxo ngeen moom nit ku bëgg dara ku nekk doo ko def ndax du indi dara Cheikh bokk na ci ay xekkamam radiyallahu am di ñaar moo koy yàq ak gànt lu mëneef tege lu mëneeful ak gànt lu mëneef nee na ñaar yooyu ñu yàq am am sa xarit teg ko lu mënul loo xam ne mënu koo jëfee ba noppi nga nga nga ko ci nattu ci boo ko defee sama diggante yow rafet boo ko defut nag da nga da maa yéenewut ne loolu day yàq ànd nee na waaye nit teg la loo xam ne leer na ne man nga ko lool ba noppi nag nga gànt ko cam xam ne moom du sa tële ko waaye sa ñàkk koo defal la tax nee na moom it nag day yàq ànd boo ko na ci waxe Cheikh Amadou Fall radiyallahu anhu daana wax ne jigéen mënut mënut a taxaw jub xocc faw mu wéeru ci nit kon yow mii borom këram nangul mu wéeru ci yow jigéen mënut a taxaw jub xocc booba ku ñu xam bàyyi diw mu ñu xam moo ñëwoon jàmbat ko soxnaam ca la ko metti ci moom Cheikh Amadou Fadil ne ko jëlal gob bi taxawal ko te bu ko wéer fenn waxuñu samp ëllër bi bopp gob bi mu ne ko taxawal ko bu taxee bopp gob bi rek mu daanoo genn wet bu taxawalee bopp bi rek bu taanoo genn wet ba ci daal suñu fan ko wéer ko ci permi mu wéer ko ci permi mu ko am mbàkke xaw naa fee sonn mu ne ko waaw dama lay jàngal adduna dama lay xamal ne jigéen ñi jigéen mun a taxaw jub xocc faaw mu wéeru kon nangul mu wéeru ci yow moom moomu dem ba ci yàgg mu ñëw ne ko mbàkke de soxna sama doon wax léeg-léeg daal mënatuma ko muy naa ko mu dem ci ñaanu ko baat mu ko mu dem suñ fal na ko ne teel déglu ko ba mu wax ko ñaareel ba ñetteel bi suñ fal na ko diw dégg naa li nga wax ca ñu am nga bàyyee leen ko ca yéene leen bokk na ci wax Cheikh Fall radiyallahu anhu dana wax ne adduna jëpp benn fan la muy tey démb wees na loo ji def doon jàll na suba xamoo dana fekk wala déet kon góorgóorlu ci tey fexeel ba sa tey jàpp ne nit ku nekk ci ab gisam mu jàpp bokk na ci waxi Cheikh Amadou wax ne boo bëggee mucc ci gémmiñu nit ñi gémmiñ damaa jàpp mu ne boo bëggee mucc ci gémmiñu nit ñi da ngay def gémmiñ gu nga nga def ca la nga man nga def ca dara boo ko defee day duñ la gémmiñu waaye dañ lay ñaanal rek ca booba nit ñi woon na ko man ne mbàkk gémmiñ ni lañ maa jàpp mu ne ko dañ ci defu dara rek boo def gémmiñ gu nga nga def ci dara day dañ lay ñaanal waaye duñ la gémmiñ boo ko ne wax Cheikh Abdou Fadal radiyallahu anhu daa wax ne kilifa bu toogee ci barab ay nit di ko siyaare ca ku ñëw ngëb dara teg ko ci loxoom bu nit agsee ñoo la booy dem war ngaa buy dem war ngaa ngëb dara teg ko ci loxoom ndax xam ne amul lu jot joxe nee booy def toog ci barab kilifa ku ñëw ngëb dara teg ko sa loxo am ko agsi nag joxe nuyoo la loxoy neen nee na buy dem war ngaa ngëb dara teg ko ci loxoom ndax amul lu bayu dara fenn bokk na ci waxi Cheikh Amadou Fadal radiyallahu anhu nee na nit mën naa suufeel boppam waaye bu mu nangu ko ci jàppale nee nag mën ngaa suufeel sa bopp mën ngaa modeste fii suufeel sa bopp waaye bul nan ko la jàppale ku la ci jàppale bëgg a toroxal lànkal ngaa wàcc mën ngaa suufe mën ngaa taalibe mën ngaa lu nekk waaye ku bëgg a toroxal nag sa insaaniye nag karaama insaaniye gi ko garde nag ak ku mën a doon jàmmaarlo jàkkaarloo moom nee nit kon man naa suufe boppam waaye bu mu nangu ko jàppale waxoon na ne bokk na ci waxam radiyallahu nee ni ganaaru jaboot diire mi ay cuujam yi muy wuuf yërmaane ju ko raw laa ëmbal mbindeef yépp ni ganaar jaboot ganaar jaboot nee na ni muy yërëmee cuujam yi muy uuf nee na yërmaane ju ko raw laa ëmbal mbindeef yépp ca booba ci bisu iid la ko waxoon sama waju neen dañoo julli ba noppi mu taxaw fii ci bisub iid wax ko ne dama leen bëgg xamal ni ma demee mbindeef yépp mi ngi mel ne ganaaru jaboot bu uuf ay cuujam benn cuuj feddi ca dem fële di for ab caali seen ko bëgg koo këf nee na buy wàll ci cuuj ba kër gi muy am ci cuuj ba mucc kër gu ko am gu ko raw laa am yërmaane ju ko raw laa am ci mbindéef yëpp boo ko defee xam radiyallaahu anhu nee na ngeen xam ne murit du alali baadoo la tànneef yi tànneef ngeen kum doon ci yéen taalibe yii dëkk ba mu jógee ñëw fekk ci sëriñ bi moo gën ca tund wa mu dëkk kër ga mu jugee ñëw fekk sëriñ bi moo gën ca dëkk ba mu dëkk néeg ba mu jugee fekk sëriñ bi moo gën ca kër ga mu dëkk moom ma ko jugee fekk sëriñ bi moo gën ca néeg ba mu dëkk kon tànneef yi tànneef ngeen waaye nag maa ngi leen xamal ne ku ñu tànn day def lu ñu tànn ku ñu tànn day def lu ñu tànn boo ko la ngay wax radiyallaahu nee woon na yéen waa Tuubaa ay seetu ngeen ab seet nag day moytu ab gàkk ndax bu gàkkee li lii seetu ci moom gàkk walay gis faawu feeñ ci moom boobu sama waju nee na dañoo tax bisu iid la bisu ko euh, asafara bisu koor la dañuy fas kumte nee na ñu julli gee ba noppi sëñ Fallu jël rajo bi ne yéen waa dëkk bi na ngeen xam ne ay seetu ngeen nit dana jóge ci réew taax yor fa ak xar gépp peñam muy pantalon tubéy pantalon jëm si Touba ne ginnaaw tubaa la jëm si day day doglu suñ ndime yii suñ tubéy yii sol ko nee na bu ñëwee ci Touba nag di dox ba ci yàgg mu gis ku sol xar géppañ gam fa bàyyi woon danaan xanaa kee gan la ne man ñu ne ko déedéet fi la dëkk de mu ne kon de bu ëllëgee bu ma demee indaale saa tubéy yaa ko yóbbee gàkk be tax nee am koo xam ne dafa am mbaxana mi dem mi am mbaar mi ci kanam bi bàyyi ko fa wut suñ laafa yi sol ko ak si dox ba càgg mu gis ku sol mbaxana mu man na man fa bàyyi woon mu ne xanaa kee day gan ni man ñu ne ko déedéet mu ne kon de bu ëllëgee bu may ñëw indaalee saa mbaxana mu ne kon da ngeen xam ne ak ab gàkk ab seet day moytu ab dàkk nañ bàyyi xel amoon nay jamono fii ci Touba bu jant yi bëgg a soo ginnaaw takku saani suuf bu masaan gis nee nañ ku sol tubay tubaab ci dëkk bi daanañ yëg ne ne ngeen defaru ndax saay saay ngi dëkk kon booba tubay tubaab raaroon boo bokk nañu wax Cheikh Amadou Fall radiyallahu anhu nee na booy jariñ ñi ci àdduna dañ lay ñaanal wërsëg yu yokk kon boo bëggee wërsëg del jariñ ñi nga nekkal nee na boo bëggee gudd fan del ñaanal ñi nga jiitu ñu lay ñaanal nga yàgg fi yàgg li la ñaan kon boo bëggee wërsëg del jariñ ñi nga nekkal boo bëggee gudd fan del ñaanal ña la jiitu boo ko dee wax Cheikh Fadal delloo nee na mbub ci sab dar bul ko solal sa mbokkum jullit nee na mbub moo xool jëkkul ci sab dar bul ko xool sa mbokkum jullit bul ko solal sa mbokkum jullit na nga jàppee ne sa mbokkum jullit moom mooy yow mooy moom rawat na nag sa mbokk rawat na sa mbokk damay faral di wax ne nit wurta am doyade gu toll ni kii ñuy ñemee jëw mbokkam ci wetam mu toog ci jataayam la war a am kuy jëw sa mbokk bu la séenee daa war a noppi yow mi mbokkam waaye léegi li xew mooy dañuy naan sa atta dañuy añ sa añ di naan sa attaaya wala ñu naan sa café di la neexale yàq sa daru mbokk dañ la koy neexale maanaam dañuy xam ne yow nii waxuma la naqar la waaye dañ cee bég loolu nag lu doy waar mbokk càgg nañ bokk nañu wax Serigne Fallou radiyallahu anhu nee na sëriñ bu mag bi day kenn bañu ko ku ko réer rek moo am waaye sëriñ bi ku ko xam bëgg nee na sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu kenn bañu ko ku ko réer rek moo am waaye nee na ku ko xam bëgg ko te loolu ñëpp xam nañ Sëriñ Tuubaa koo gis radiyallahu anhu muy wax ci moom leneen rek da koo réere da koo xamul da koo xamul gàtt umpale na ko lool ndax bépp nattuwaayu mbaax bu ñuy tàggee nit sëriñ bi raw ñëpp radiyallahu anhu te loolu moom keroog bu bis pénc baa lay feeñ du suñuy wax ay waxam sëriñ Tuubaa moo toog bi su yàgg suñu bañ ko jabal nee na mu ne mbaa li ñuy wax yëg sa bopp yaakaaru yaakaaru leen ne mucc naa ci ñu ne ko ah mbàkke loolu kay yaakaar ne moom dalul la mun ah kay saa bu ñu ma tuddee tudd nit ci tëkkale bu ma sañoon bis pénc di tey tey te loolu yëg sa bopp loolu yëg sa bopp la boo ko doon wax Sëriñ Fall radiyallahu nee na jigéen ku ko munta muñ da koy muñal jigéen boo ko munta muñ da nga koy muñal boo ko doon wax Sëriñ Abdou Fall radiyallahu anhu nee na nit waaw dane woon daa am ku ñu woon ci moom wéré woon suñu Fall na ko na nga def mbaa yaa ne mu ko man ne mbàkke maa ngi fi las las rek lu déet las las laseet leen ñoot ñotti ndax nga ne ñokket waaw las las moom la seet rek leen ñoot ñotti ndax nga ne ñokket bokk na ci ay xikmaam radiyallahu anhu kum doon sec nettoyé loo ak fital mu koy nettoyé ba ci yàgg bunt bi wuti sañu fan sëñ Fallu jëmale ko ne waay mu ne ko mbàkk mu ree ne ko mbàkke dara néewut kon nga jëmale ko fu dara néewut waay kon nga jëmale ko fu dara néewut waaw ak fital moom daraa ngi ceeg dara néewut ci yëpp nu jëm fu dara néewut boo ko def wax Cheikh Amadou nit boo bëggee seen diggante neex da nga ko jàpp bu wér nit kenn du ko cof ndax nit xëjul cori baaraam koo cof mu war ne nit boo bëggee seen diggante neex da nga koy jàpp bu wér waaye nit kenn du ko cof ndax nit xëjul cori baaraam nee na koo cof mu wadd koo cof mu wadd bari waa wallaay koo xam ne yaa ngi naan gisatuma ko lu tax ak ca fekk ne jëflante boo jëflante ak moom mu xam ne yow da nga koo cof da koo tuddal wala da ko doy dal ak loo ko mën a amal ci njëriñ mën na laa muñ doy gor loo ko mën a amal ci njëriñ ndax am na ñoo xam ne jàpp nañ ne njëriñ sañ lay jëriñ tax nañu mën laa minimiser mën laa doy dal mën laa mën laa mën laa tuutal te déedéet nag boo ko ne wax Cheikh Mamadou Fadal radiyallahu anhu nee na wolof njaay da nee sàmba mënul kanamam man gannaawam waaye maa ngi leen xamal ne yéen ñii de seenum sàmba bokku ci seenum sàmba moom man na kanamam man na gannaawam radiyallahu anhu bokk na ci xikam Cheikh Amadou Fadal radiyallahu anhu nee doomi diw ràkkal rek la fexeel ba doon diw ku la laal niin koo laal mu niin nee na man maay doomi diw mu ne doomi diw ràkkal rek ci boppam ku la laal niin nee na tuur samay ronxooñ day ci bëgg Cheikhul Xadim radiyallahu anhu farata laa ko def farat wut farata la de waaye farata laa ko def moom tuur ay ronxooñam ngir bëgg Cheikhul Xadim radiyallahu anhu nee moom farata la ko def boo ko ni wax Cheikhul Fadal radiyallahu anhu nee na ku ci am ab taalibe sëriñ bu ci am ab taalibe loo koy defal bay boo lii moom ci làmmiñu Cheikh Cheikh Abdoul Fatah mi Cheikh mi suñu jëwriñ nga xam ne maa ngi seen jëwriñ la ñuy wax ci suñu sëriñ ci lañ ko nangoo nee na sëriñ Fall la ko wax ne ko ku ci am ab taalibe ci yéen day bay boo lu mu koy defal mu defal ko fii ci àdduna lu mu koy jariñ ndax fee moom borom loxo su tuut sa dong lañ fa yaakaar mo Cheikhul Khadim lu waaye defal ci taalibe bi ma defal ko fii radiyallahu anhu bokk na ci wax Cheikh Fall radiyallahu anhu nee na sama bët yii sama bët yii moo munta gis ku ñuy mbugal sama bët yii moo munta gis ku ñuy mbugal ca booba Madina booba la nekk am ku jël yëfi jàmbur ñu koy fitnaal ba mu romb fa Cheikh Mouhamadou Fall radiyallahu anhu ne bàyyi leen ko bàyyi leen ko waaye ñu ne ko mbàkkee moom daa jël daa luubal yëfi jàmm waaye man sama bët yii moo mënut gis ku ñuy buggal radiyallahu anhu bokk na ci ay waxam radiyallahu anhu ñu ne ko man kaana lillaahi kaana laahu kaana allaahu lahu mu ne man kaani li ku mu doon kaana lahu kookee koo nekkal rek mu nekkal la koo gis mu naan xam ma diw xam ma nu ma koy def nam ko defa tax ci jeexal Cheikh Amadou Fall bokk na ci boo dee def koo gis ne du waaja waaja dana la romb di wéy ca doo ko xam ne boo dee def koo gis ne du waaja toog di xaar waaja nee na waaja dana la romb bu yàgg ca doo ko xam ne bokk na ci am dénkaaneem radiyallahu anhu benn muy Baye Afe Mbay walla Baye Moustapha Mbay ci Baye Afe laa ko gën a lënkal sama waju nee na dañoo toog bis Cheikh Mamadou Fadl radiyallahu anhu Baye Afe ko boobu Baye Sëriñ Ñang guy gi moo ko doon jàngal oto Baye ni yaay as mu ne ko ñëw mu ne ko waaw mu ne ko toogal ma jàngal la li ngay bëgg a jàng li ngay jëf leen teeg ña ña nga gis loolu nga jàng de néewaana fu mu jógee ànd moom dong otol néewaana lu mu wéete ma bëgg nag boo bëggee mucc koo gis na ko may ay teggin ndax boo ko defee day kenn du man ci dara ne ko waaye boo amul ay teggin day da def nit daa du man ci dara waaye da nga def dara la muy def ci yow kenn du ca man dara boo amul ay def nit dara du man ci yow dara nee na waaye da nga def nit dara la muy def ci yow nag kenn du ca man dara bokkoon ci aw waxinam nee na wolof njaay nee na wolof nee na mbooloo mooy doole suñ fan na déedéet mbooloo mu boole seen doole mooy doole mbooloo mu boole seen doole waaye mbooloo mu tàqali ko nee na du doole bokkoon ci aw waxam radiyallahu anhu nee na bu wërsëg day bu dee ñëw def yu réet mën naa gaaw a jeex waaye bu def toq-toq day mën naa taa ca kenn du ko yëg dal na xanaa gis nañ ab rubi na buy toq-toq wi ndaw ñu bari mën nañ koy romb bañ koo faale waaye bu naan yëreet rek ñu naan ub leen rubi na rubi na rubi na nee moo tax wërsëg bu naan yuréet rek mën naa gàtt fan ne na waaye bu def toq-toq moom mën naa tooy ba ñëpp jariñu ci ca coow la bari am naa nañ ñamane foofu kon ndax xekkami Cheikh Mouhamadou Fadil radiyallahu anhu fees na lool ca bari woon lool wax dëgg yàlla benn la ñuy rek mooy fonk gi mu luy màndargaal fonk gu mu fonkoon Cheikh naan Xadim radiyallahu anhu mi léppam sama waju neen dañoo toog waxtu ginnaaw tàkkusaan loolu moom Baye Moustapha Mbaye la woon Baye Moustapha Mbaye yor ak naawalam di for xomi ngi gis gi ak new gi nekk ci kër gi di ko dagale ci naawal gi ba ëmb ko ci naawal gi dal di romb wuti sa wuti wuti buntu kër sëñ fànn bi sëñ fànn ko foo jëm waaye moo ko mbàkk dama koy wàcc mu ne ko wuti kii kooku nañuy wàcc du ko wuti dëppal nga xam ne gisul buntu kër bi waaye sëriñ Tuubaa bi mu dëgmal la gis moom mu ne ko lu ñuy wàcc du wuti kooku bokk na ci ne mandargaal loolu bis boo xam ne nee na dañoo to dañ ne daa am ku ne attaayee démb jëre moo daq jot tey ji suñu fan waaw moo war a dàq waaye ndax attaayee démb ji moo gën a jege borom baraag bi moo war a daq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu